une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer aousu billahi min shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin wasalatu wasalaamu ala ashraf mursalin sayidina mawlana muhammadil amin wa ala alihi bi ihsan ila yawmi din mbokki jullit yi mbokki ñu ngi am mbégte ak kontaante ci ànd ci bis bu màgg bi nga xamante ne ñu ngi koy amale fii ci Touba Darou Salam waaye tey ñu ñëw ci eh, jëmm joo xamante ne way jur la ci ñun di koo xamante ne suñu sëriñ la lépp la di sëriñ Maxtaar Mbàkke mu sëriñ Mbàkke Asu moom sëriñ Moodu ñu ñëw tey fekk fi taalibe yi nga xamante ne ñoo nekk ci kër gi kenn ku ci nekk rek ñëw di sàkku si barke ci moom waaye ñu fekk fi mbooloo ñi nga xamante ne ñoom ñooy sang si askanu Maam Maaram ñëpp ñëw fi ngir ndokkal si ko ànd ak moom ci li nga xamante moom la jox kàddu gi ngir mu ubbi eh, sëñ bi doog a tëj ko naa dama koy jox kàddu gi rek mu nuyoo ci turu bi waa ah, jërëjëf sëriñ bi ñoo ngi nuyu ñëpp ginnaaw bi di sant yàlla julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa di sant Seexul Xaddim di ñaan yàlla yàlla may nu màggal gi ñu fekk ay at yu bare bari te yàlla jeexal li nga xam ne si la mooy mbas mi ne ci réew mi ak ci àdduna bépp yàlla na ko yàlla dàq mu jeex ci àdduna bépp tey ji nag ñoom mbégte ak contentement ak santaar yàlla ginnaaw bi ñu dajawaate fii ci kër Serigne Modou Makhtar Mbacke moom sëriñ Mbacke asu ni nga ko waxe moom sëñ Modou Mamoun moom sëñ Cheikh Anta mbokk ndeyam Faati Anta ak Mbacke Anta macha ñoo ñu bokk lépp tey jii nag di bis boo xam ne bis mbëgte la di bis boo xam ne Seexul Xaddim moo joxoon ndigal sëriñ bi di Cheikh Anta. mu di ko sant yàlla di ko sant la borom kon bis la boo xam ni moom ak bisu màggalu Tuubaa ngi defal Seexul Xaddim benn bis la amul wuute ndax li tax loolu mooy ki nga xam ne si la mooy Cheikh Anta tey di borom dërëm ak ngërëm nga xam ne tey waajuram mu baax na soxna Anta Ndiaye Mbacke dafa liggéey loo xam ni du du Daaru Salaam rek la ko liggéeyal waaye dafa liggéey loo xam ni adduna la ko liggéey waaye dafa liggéey loo xam ni ak lu murid yëpp la ko liggéeyal li tax soxna Anta Ndiaye Mbacke aw ñangu ko jur maam Maram Mbacke soxna Jaara Buso mu jur Xaddim amul soxna Buso ko jur maam Maram soxna Sawalo ko jur amul waaye soxna Anta Ndiaye moo ñëw ci kër soxna Sawalo mi nga xam ne ñoo bokk bàyyi ndax li tax loolu mooy Ibra aw Ibrahima Ibrahima aw ñang ak ki nga mooy amul soxna Buso ñoo bokk Maram Mbacke ak Balay sa mu ñëw ni ko dama bëgg soxna Jaara mii nga indi mu ñëw ñu jox ko xaali Mamour Anta Sali ñu bokk fa liggéey xam nga loolu yombul soxna sa wàllu ne ko loolu nan la mën a nekkee kii sa dooma ndax maa ngi yow bokk bàyyi nga bokk ko jël di ko indi ci yow muy muy bokkee yow genn kër mu ne ko déedéet waaye dafa am loo xam ni ah, lu yàlla def la ci moom te kii nga xam si la moo te jamono la ci moom mi lay jóge faaw mu ñu jël ko dool ko ci kër gi moo tax tey waa kër waa kër waa Daaru Salaam doo ci gis kuy ñaan ndax loolu kuy ñaan munu ko loolu nga xam ne soxna Anta Ndiaye da koo liggéey ci kër Maam Mor Anta Sali waaye yemul ci loolu ki nga xam ne Cheikh sëñ ma Samba waajuram muy soxna Isa Diop nga xam ne Mor Khoudia Koumba ko jur ma Samba Anta Ceebu ma doon penn booy Matar Ndume ma sanc kokki ki nga ba nga xamee ne si ne Lat Joor mi ko yoroon am ci Mor Isa war na koo bàyyi ndax boobu xamal nan ni ko soxna si du jur lu nu yilif il faut da koy yeewi na jox ko keneen bi mu ñëwee jox ko wax wax daan ne nag kon xaale Mamour Anta Sall mi nga xam ni moom daan xaaleel dama atel moom laa koy dénk bi ko joree dënk dafa yor ñeent mu ne lislaam ñeent la yor kon nag macha allah loolu du ma ko mën a def. waaye nag bi nga xamee ne le waxtaan naa Soxna Anta Ndiaye Mbacke dana ko yeewu ma ma dem ca wan ak wële te nga jël ko ndax kilifa ko toll ni kii du la jox soxna nga di ko delloo kooku mooy jur ki nga xam mooy sëñ Massamba bi nga xam si le sama morasel dem naa jëna jox ko daam ko ja jëbu moom ngay del ko jëkkumba moom sëñ Modou Lo Isaac sëriñ Ibrahima am sado Abdou Karim ñu bokk ndey ak baay kon nga ñëw sëñ Matar muy Daaru Salaam waaye di Seexul Xadim waaye di Daaru Muxti ndax soxna Faati sa mi ko jur maam Thierno ko jur maam Thierno soxna Binta Mbacke soxna Fatou Binta Mbacke ñoo bokk ndey ak baay Fatou Issa leen jur Fatou Issa Njaga Issa Ndumbe Xëri Aminta Njaga ñoo bokk ndey ak baay Modou Fakou Dia leen jur Modou Fakou Dia Massamba Fakou Dia Matar Ndumbe seen maama sant kokki Matar Ndumbe Ndumbe Seck ko jur Ndumbe Seck Fori Mata Seck Anta Seck Gay Seck Kumba a bokk ndey ak baay Farimata a dem kër Maam Mara Mbakke am ci Amadou Farimata Ibra Farimata Cerno Farimata Cerno Farimata jur Mati Mbakke mu jur Maam Ousmane mu jur Alaaji Malick bàyyi sëñ Babacar waaye Cerno Farimata jur Xari Mbakke mu jur Ngañ Ñang ak Mati Ñang nañu jur Sofiatu ci Serigne Mansour mu jur sëñ Mbakke mu baax mi nga xam ni ah am nay mag waaye ku sant Mbàkke la summil ay dàll ak mbaxana waaye ku gën jukko yaay yaay ku nit waaw jukko ji rafet na mu baax am yar ami teggin am njariñ am wilaaya te du te du te du ko wane macha allah foo ko fekk mi ngi ne dégg rek wanewul dara. waaye na fees dell ak baatin macha allah waaw boo fi ñëwee soxla soo fi indi yàlla sunu borom dana ko faj ci cellam jooju waaye ak dalam jooju waaye ak am njëriñ gi te dafa am solo te te te alaaj ma dafa am lu mu ma sa wax dana nit ñi dee leen defar bool yi ak kër yi ndax bool ak kër ci leen ni yabe nit waaye ci leen ni nawe nit waaye boo ñëwee fii doo ko yab ci loolu doo ko yab ci kër doo ko yëpp ci bool doo ko yëpp ci poos doo ko yëpp ci jukko te dafa am loo xam ne si ne nee naa juróom yoo xam ne benn bu ne ci nit la gën dafa am tur waaye benn bu ne ci nit la gën muy jub ak way teey ak mat ak wër jub ci yoon lan ko taamu waaye ci nit la gën ku a ngi nii teey ci ndox lan ko taamu waaye ci nit la gën ku teeye ngi nii way a ko taamu waaye ci la gën ku waye ngi nii mat cim xarum tabaski lan ko taamu waaye ci nit la gën ku mat a ngi nii waaye wër cib góom lan ko taamu waaye ci nit la gën ku wër a ngi nii asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu xanaa jox seen baay rek a njaase njaay ak moom xasida yi mi nga xam si la moom it moom ci xasida sëñ tuwaay dong la yëngu mi yàgg fi loolu waaye di ñaanal Serigne Mountakha moom Cheikhul Khadim mi nga xam ne si la keroog ma toogee ak moom dama ko ne da ngaa def lu am solo yow Serigne Mountakha xalifa général gii bu doon bu doon permis la da nga lang ba pare ba doo ko am sa permis ndax ku doomu Serigne Touba jaamu nga ko topp ndigalam ba am ngërëmam waaye kuy sa mag topp nga ko takk sa ndigg ba am ngërëmam waaye xool lim def ci réew mi bi réew mi amee bi réew mi corona bi ubbee moo génne deux ko ci bi marché Ocass lakkee moo génne 100 millions jox ko ci marché Ocass barki dem jox na 100 millions ci kër ma kër magi mag ci jumaam ji di jumaay Maam Mor Jaara ji barki dem bi nga xam ne si la mi bëgg naa takk moo génne cinquante millions jox ko ñu faatu ak ñu gaañu la waaye moo fay moo fay nag li doon tàkk mu Serigne Mountakha moom Cheikh Cheikh Mouhamadou Basir moom Cheikh Khadim fi barki démb fii la jullee ak tisbaar ànd ko mbooloo mépp kon ñu ko ñaanal mu yàgg fi loolu te waaye di ko ñaanal xalifa sëñ Cheikh Anta moom borom Daaru Salaam waaye di ko ñaanal xalifa sëñ Mbàkke Astu di magam ju baax ji di ko ñaanal moom yàgg fula te wér waaye di ko ñaanal yàlla na yàlla yàgg ko te te sàmmal ñu ko te te ah, yokk sutura si ak teraanga ñu fekk at yu bëree bëri barke Cheikh Khadim barke sëñ Massamba joxal Baye mu barkeelu ndax jàpp nañ ne wax ji moom euh, am na solo lool lool lool xam naa ne ñi ngi la fekk fii ci kër Serigne Mamadou Makhtar Mbacke mi nga xamante ne sunu sunu xarit la sunu lépp la euh, yan kàddu nga ci yëkkati ci gàttal hamdi wa sukri liman لو ردان دون سخط عند سرسارة لو سناء وردوان بلا زقة مسخاد لي من دمي دمان أنصار لله كل لدى أبار مكرمة من ارتالنا وفيها جم منزارة إن الذين إلى سرسارة قد خسدوا سيارتي فارخوا دارين يوسف Euh, bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi siyaare ñëpp euh, di jiital ci siyaare bi xalifatul am li tarixatil muridiyya mi sëriñ Muntaqa Mbakke yàlla na fi yàgg te wér tey ñu teew ci bisum maam Cheikh Anta borom Daaru Salaam ak gaawaan ma yëkkati xasaay di sëriñ Tuubaa yi ñu ma xame wolof dafa wax ne jubbu biñ la xamee boo ko watee kenn doot la xam ñun jànkatu xasaayit lañu te jëmm ji toog di sëriñ Maxtaar damay seere ci moom loo xam ne mucc naa ci ñetti njëppite wala fi dañuy wax ne booy wax na nga moytu ñetti njëppite booy wax te mu wér la ni li ngay wax du dëgg da sa bopp ñi ngay waxal li wax du dëgg dañ lay jëppi yàlla mi doroon pour jëppi la wa ma shahidnaa illaa bi ma alim naa seede ba ca gën nga seede loo xam moom nag li ma xam ci moom mooy ak taalibe te ak taalibe nag mooy lépp ak taalibe lay dund sagal nag yoonu murit sagal yoonu murit nag mooy kenn du yabe Serigne Touba ci yow ku gis sa jëmm fonk la ngir jëmmi Serigne Touba ku ñëw sa kërit fonk la ngir jëmmi sëriñ Touba loolu la ñu xam ci moom mu defal ma nag loo xam ne ñetti la yoo xam ne ku la ko defal ku ne bëgg na la wolof dañu ku jox nga lekk bëggul nga dee ku la jox ay yére nga sol bëggul nga dof ku la may xaalis bëggul nga torox te ñett yooyu yëpp séq naa ko ak moom fi may daaneel sama kàddu mooy juróom-ñett ngi nii baax na ci ñëpp waaye ci doomi soxna la gën te tasu ci yaakaar yi taalibe yi bankal sa baaraam bi ci jëkk mooy xam-xam aw fit fulla doylu jom yaru jub ak am njëriñ ma firil la ko boo amee xam-xam kenn du la mën a nax jàng dafa baax boo amee fit kenn du la mën a xëbal adduna daa bëri yu xëble koy def lu la xëbal nga ni pëccet ci xel ngay dëkk te ku dëkk ci xel du taxaw bay taxawal dara boo amee fulla kenn du la foye boo doyloo kenn du la mën a jënd boo amee jom loo song daaneel ko boo yaroo ku la gis bëgg la boo jubee kenn du la toroxal boo amee njëriñ doo wéet nit day am njëriñ dafa am nag doom bu ñëw siddéem ñu bari màcc nañu ko soo koy macc nag loo xiif xiif del yàbbi doom yi ndax moo gën gis nga si dem yoo xal bu mu ne am na yoonu fa jëm ñu koy raasi njariñ sañ cee musa tax pëftan doom bu rëy la ci buntu kër gi lay sax te dañu koy romb nit dayam njëriñ wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu wax ji am na solo ndax dafa mel ne euh, ziar moo indiwoon nit ñi waaye jàngale nañ ci xam-xam boo xamante ne mbirum mbirum baatin la euh, kon ñu ngi ñaan yàlla yàlla yàlla yàggal leen fi yéen itam ndax tamit wax dëgg yàlla yéen itam li ngeen garde muy muy muy muy li maam ñi yoroon lu am solo la loo xam ne mu leen fee ñàkk yàlla na yàlla yàggal seen taxawaay ci barkab sëñ Tuubaa kon xam naa dañuy daal di jox sëñ bi kaddu gi rek ndax euh, wax dëgg yàlla ñun moom seede li nga wax sànq rek laay seede ne sëñ Maxtaar yàlla daf ma daf ma daf ma dogal ci man mii li nga waxee ne xeebul kenn mu am fu mu jaar ak man foo xamante ne ba léegi nii damay ñaan yàlla yàlla yàggal taxawaayam ndax ndax ndax wax yàlla ndaw laa gën na maa nekk ndaw bi may xamante ak moom bu ma dikkee wàccuwaay bi may jox damay am kersa te loolu lépp nag muy baaxam gi fi moom ak ak ak njëriñ li fi moom moo tax kon ñi ngi ñaan yàlla yàlla na yàlla yàggal ko fi yàlla na yàlla sàmm ko te musal ko ci barkeb Sëriñ tubaa dund ay ati ati du ma ne du ma jox ab lim waaye damay ñaan yàlla yàlla ko ci kaw suuf ci barkeb Sëriñ Tuubaa te wér ci barke bi yàlla euh, ma xanaa ma bàyyi rek ci kàddu yu mujj yi bi ñu ci jaraay bi. asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatuhu. noo ngi nuyu mboolem mbokki jullit yi mboolem mbokki taalib di ca jiital Cheikh Mouhamadul Mountakha euh, di ko ñaanal yàlla yàggal ko ci suñu kanam àgg la yéeneem ci atub di ci tegit xalifatul am bi nga xam ne moo njaboote mboolem buntu kër maam Cheikh di ca teg mboolem ñële buntu caabi ati Sëriñ Tuubaa yëpp ak ati islam yëpp di nuyoo nag nuyoo bi ci asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu li ñu dajale tey daanaka wax ngeen ko ba noppi muy jëmmi Serigne Touba loolu mooy bis bi nga xam ne moom la Sayxul Xadim teewoon fii fi Daaru Salaam ci rakkam ci tedd ja jub ji tukkeem bu bi nga xam ne tey ginnaaw yàlla ëmbam boobee mu ëndaale ne woon maam saxante foo ma dégg ma jaar foo ma dégg xamal dama faa jaar waaye fii lay ñu bisee ëmb bi yaa koy tekk yaa koy séddale loolu yi moo waral lii tey sëñ Muntaxa it mel na ne fedle na ko barki dem bi mu ñëwee fii ba julee fa tisbaar ne màggal gu ne wax naa nañ ko woyofal defe ko nii ak nii waaye gii moom ak gu Tuubaa Sëriñ Tuubaa moo ko digloon ci làmmiñu boppam kon bu ma sañoon moom lu ngeen ci daa def da ngeen ko yokk te danaa ci ànd ak yéen noonu la ko waxe danaa ci ànd ak yéen mu mel ne loolu feeñee ci màggal gi ndax benn sëtu sëñ Abdou Khadre léegi la wax ci la wax fii ci rajo yi fi njëkkoon ne sëñ Mountakha kat moo fi nekkal sëñ Touba ah te mel na ne màggal gi kat daa bëggat mu ubbi woon màggal yi ni sëñ Touba ñëw woon jóge ci tukki bi bi mu ñëwee indaale xéewal yépp li jafoon yomb dindi tënk yi dindi jëng yi waaye gëm na ne màggal gi sëñ bi da koo digle ngir mbuubaan màggali kon mu mel na nee na lawoon ca cosaan rek la sëñ indiwaat màgg li jiitu yëpp xam nañ li sëñ bi wax te li mu wax ci bii ah mel na ne def leen ko ni ngeen ko daa defe te woote ko lu ngeen ci daa def lu ngeen ci daa def ni ngeen ko yokk naa ci ànd ak yéen lii la ñu digal kon loolee dafa xam rek borom bis bi kiñ koy defal ak ki ko doon def ndax maam Cheikh Anta nee na woon bis bi day lu waay def ba jàpp ne naw naa ko xeem naa ko ndax ki ma koy defal kon lu ngeen ci man ngeen ko def ba muy bàyyi at ma muy mujj màggal dañu Cheikh Mouhamadul Mamoun mu ne ko Mbàkke mu ne ko dan laay mujj màggal waaye nag bis baa ngi noonu Mouhamadul Mamoun mu ne ko Mbàkke mu ne ko bisu sama sang baa ngi noonu bu leen wutal beneen bis bis bi laa leen dégg asalaamaaleykum wa rahmatulah laaj boobu na am ñu tontu. macha allah macha allah kon mbokk yi ñoo déggandoo kàddu yi am solo yi nga xamante ne jóge na ci sëriñ Makhtar Mbacke mu sëñ Mbacke Assou mu sëñ Modou Mamoun mu sëñ Maam Cheikh Anta Mbacke borom gaawaan euh, kon ñu ñaan yàlla fasal yi nga xamante ne amoon nañu yéene ñëw ci bis bi te yàlla dogal ay tënk-tënk jàpp leen ndax bis bi yaakaar naa ne moo ëpp géej. ndax géej sax mën ngaa dem ba xam ne fii la yam ci boo taxawee ca tefes nga waaye lii amul tefes amul fu mu yam ndax Serigne tubaab mi ngi fépp kon ngi ñaan yàlla yàlla na yàlla doon li taxaw ñëpp di ñaan tamit xam naa ne fi may fi may kii rek mooy euh, xew-xew bi nga xamante ne xew na démb muy sëñ Mamor Mbacke moomu làqu xam naa nga boo seede boo doon seede ci sëñ Mamor. incha allah euh, loolu moom dafay seede boo xam ne bu ñu xam la bu ñu seqoon ak moom la. Euh, ñu ngi wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un euh, di ko ñaanal yàlla na ko yàlla mm, may maamam teeru ko ndax jëmm ju sel ju baax ju bëggoon alxuraan ju bëggoon xasaayid sëñ Tuubaa jëmm la joo xam ne nit kenn la woon ci yoonu murit li sëñ Ndiasse wax léegi sagub yoonu murit bokkoon na ci sagub yoonu murit kon tey ñàkk nañ jëmm joo xam ne bu doon jàkka dañ naa kenn bu mag fàq na ca Rafah TV une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer